ab accident bu métti nag moom moo am ci yoonu poroxaan bi fi nga xam ne moom mooy tolloog dëkk bi ñuy wax dingiraay tey ji ci àjjuma ji ci fajar bu bari 5 heures du matin di jot boobu la accident nag dox ci diggante ab njaganjaay nag ak benn minicar boo xam ne ni dañoo yeboon ba fees ñoom ñaar ñoom ñoo daal di daje jamono ji nag ñaar doomu aadama ñàkk nañu ci seen bakkan lu ëpp ñaar fukki doomu aadama ak ñaar nag am ci ay blessé yu grave grave ñi nga xamante ni nag ñoom ñoo ci ëpp ñu blessé ñi ngi dëkkee ci dëkk bi di Touba Toul daanaka ñoom ñëpp ñoo bokk benn koñ jamono ji nag ñi nga xam ne ñoom ñoo yore blessé yu grave yooyu le ak ñaar yi néew yi doomu aadama yooyu le nag ñu ngi leen yóbbu ci hôpital El yi ma ñas bu Kaolack